Serigne Mboup largement en tête euh, ci kaw euh, Ndiaye ma bi nga xam ne mooy candidat euh, coalition benn Bokk Yaakaar ak yeneen i candidats yi nga xam ne ñu ngi foofu ndongal daara ça veut dire mu xam Alaaji Mansour rupture peut-être bu bu Kaolack am ci li nga xam ne mooy politique yi teg koo xam ne opérateur économique la ndongal daara la mais bu ñu ko analyser globalement sànq maa ngi koy wax responsabilité bi ci jeunes yu bari ak ñi nga xamante ne euh, politique la ñuy def euh, euh, ñu fës ci loolu ñu bari ñàkk seen ay localité duñu wax ne sénégalais yi ñoo bëgg a xaw a bàyyeeku ci ñenn ñoo xam ne dañuy politique de trop. xam nga suñ sëriñ boobu tey mun naa wax ni maire yi gagné yépp ci Sénégal amul kenn. ku ko ci gën a jiite localité bi nga nekk par rapport ak moom expérience bi mu am entreprise yi mu taxawal Sénégal xam-xam bi mu am Sénégal ay société mu koy doxal macha allah donc doxal commune bu mel ni Kaolack mënu koo jaaxal euh, boole ci Kaolack xam nañu ko moo nekk seen président chambre du commerce ba noppi itam di fa def ay. Euh, di fa tabax yu am am solo wax naa ko sànq dama koy bamtuwaat. et déjà ça ça lui a donné maire. c'est ça. la mu commencé la mu commencé euh, benn ñaare bi ci des ndongo daara comme ni ñu koy waxee euh, man dama ci am sàkk. parce que ba dindiwaat na beneen yoonaat beneen complexe waat te ñëpp xam nañu ni moo ëpp xam-xam cuxu cuxu wi ñu teg ci ay yenn direction xam nga bu ñu la waxee ne taxaw nañ benn direction jox nañ la ko. yow ngay tiitaroo xaw ma jàng naa fële wala jàng naa fee alors que yow direction bi nga yor budget mooy tolloog budget benn unité ci li sëriñ boobu jiite. léegi yow nga ni kii ndongo daara la xëy na voilà quoi na la def ba jiite non kooku moo yow jiite gis nga gis nga gis nga ñi am ak ubbeeku ci ay domaines yi wuute ñi nga xam ni dañu jéemal seen bopp ba am lu ñu taxawal ñi nga xam ni xamuñu détournement ndax jomm nañu ko ñi nga xam ni. xamuñu jalgati alalu askan wi ndax rus nañu ko ñoom ñi doon ñi doon politique ñëpp amul ko ci ëpp sëriñ bu alal car macha allah mais moom ñimewul campagne di génne xaalis di sànni mukk xalaatu ko ñimewul ñu ànd ak ay neex bi di attaqué ay ndaw di xeex ak ñoom ñimewu ko parce que la jiitu ci moom base bi moo tax et Sénégal kooku la soxla tey kii def campagne te du def violence kii yàlla bàyyiwul si alal te du ko fowe kii dimbali nit te kenn du ko yëg kiy jàppale ay école ak jàkka te di woo média mais kooku la ñu soxla léegi nekk naa njiit yomb na mbi njiit bu am jikko booy incarné bu population ba dañuy roy sax ci yow ci wàllu jikko et eh, suñu dëkk yi Afrique problème boobu la ñu eh, am problème moral la ñu am. Mhm. waaw Fatou. Euh, euh, pour pour pour bañoon la dagg la coalition benn Bokk Yaakaar vient de reconnaître sa défaite. Ouais. à Dakar et à Ziguinchor. Mhm. Euh, communiqué boo xam ne ñun ñu ngi ko jëlee ci site d'information Dakar Actu que ne cellule de communication. de la coalition benn Bokk Yaakaar euh, nee na ñu am na tendance yoo xam ne nationale yoo xam ne jot nañu ko capital régional départementale yi am na ci yoo xamante ne am nañu ci ndam waaye fu ci mel ne dakaar ak Ziguinchor ñàkk nañu ko kon ñoom loolu la ñu wax eh, terewul nag ñi ngi rafetlu li nga xam ne moom mooy eh, vitalité de la démocratie sénégalaise bi nga xam ne moom mooy yegsi ci élection locale yu apaisé yu ñu gis donc il il confirme ou bien elle la coalition eh, Benno Bokk Yaakaar confirme la victoire euh, de euh, la coalition Yewwi Askan Wi euh, à Dakar et à Ziguinchor maanaam ci ci Kalamay coalition Benno Bokk Yaakaar nangu na euh, victoire euh, bu Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru donc Barthélémy Diaz en tête Ziguinchor Ousmane Sonko en tête ñu bàyyi la nga yeggale. ban commentaire loolu lañ loolu lañ nangoo gum. loolu lañ nangoo gum loolu lañ nangoo gum. loolu lañ leen jottali juste mooy communiqué boobu noonu. Mhm. Euh, li ñu am ci ay tendance comme ñoom li ñu koy amee. Ah, du rek Dakar du dong du dong Dakar ak Ziguinchor. du dong Dakar ak Ziguinchor. on a on a également on a également Guédiawaye. Guédiawaye aussi nañ ko confirmer bu weesoo Guédiawaye aussi euh, am na yeneen dëkk nag yu parce que commune dëkk la. commune moom boo amul ville itam am commune. ñun li leen gagné ci ay commune kenn xamul lu mu toll Thiès aussi. leer Rufisque également pour la ville et la même chose commune Rufisque Ouest. waaw ville Rufisque. gëm sa bopp ñoo ko gagné. Euh, Thiès ñëwagul la ah? waxaguñ waaw Thiès sax Thiès daal la ñu wax risque de tomber. Euh, Louga amagoo ko. Louga euh, euh, Saint-Louis Simon dina ma dina ma jox léegi. gànnaay Saint-Louis Babacar Niang dañoo dëxëñal mais mënuñu woon sax am euh, teeyug mën a am parce que ni mu doon waxee mënuñu woon ñu noté pour def ay ay tendance mais amuñu confirmation ci. alors parcelle ñàkk nañu ko Talla Sylla qui qui qui qui qui félicite Babacar Diop. loolu la ñu gis j'ai félicité Babacar Diop maire élu de la ville de Thiès. dinañu xool parce que xam nga dañuy joxe information yi di gën a creuser waat pour amaat moo tax ñuy tudd suñu ay sources pour que ñu xam ne foofu la ñu ko jëlee bu weesee suñu ay correspondants yi ñu yot ci ay information ci yenn sites yoo xam ne fiable également ñu ñu leen di tudd alors Mansour ah, waaw kon kay Fatou yow li nga jot noonu comme comme xibaar dafay dëggal li ma wax nit ñoom bu ñu bu ñu Mansour sax ce qui est grave c'est que Thiès qui tombe maintenant dans le bastion de l'opposition mm-hmm.

xam la c'est-à-dire de par la nature de Idrissa koo xool sa proximité son implication son ancrage à Thiès aujourd'hui Babacar Diop qui vient qui bat Idrissa à Thiès c'est parce que quand même il y a quelque chose qui est en de s'opérer qui reconnaît le maire ah, ah sortant candidat de la coalition Yewwi Askan Wi mais mais mais mais Mansour c'est une affaire de gentleman c'est qu'il ah ñoom euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar mais mais c'est ça qui est mais mais mais mais euh, Serigne Saliou. Hmm. jamono yu mujj yi yëpp dañu gis ne. c'était très tendu quand même. Oui, donc c'est une affaire de gentleman. il faut il faut saluer ça aussi mais laaj naa la Fatou ñoom bu ñu deful nii nu ñuy def. oui. est-ce que am nañu beneen pexe. il le faut mais ko reconnaître féliciter. Oh, bu ñu féliciter ñu gagné leen bu ñu féliciter ñu gagné leen il faut que tu félicites ton ci commune yi <laughs> leen dénk ci gestion askan bi mu ngi seen ay loxo ba tey. mais donc la ñuy nangu il nekk ci seen loxo. non il faut saluer euh, l'élégance démocratique oui euh, position bi ñu taxawee. Mhm. soppiwul dara ci li tax ñu sanctionné leen. mooy dundinu askan bi tey dund la yow wóor na leen suba boo xëyee di nga ndékki man wër na ma Mouhamed noonu mais bari na tey ñu dem vote ji te bu ñu ñëwee dañu taaba taaba la ñu reer c'est-à-dire difficulté Sénégalais yi seen coono seen souffrance moo répercuté wu ci urne yi loolu lañ leen di interpeller ni leen maire yi ñàkk ngeen ko mais tox ngeen ñàkk li ñu leen dénk parce que ba léegi nguur gaa ngi seen ay loxo ñu taxaw indi solution ci dundul askan yi sénégal yi dañuy souffrir sénégal yi dañuy yokk njëgug li ñuy lekk par jour te xamuñu li causé yokk bi lan la ceeb bi diw gi saabu bi nawe bi suukar si amul lenn looy laal pont ciment suuf c'est-à-dire que ciment ni muy yokkee ci Sénégal amul contrôle cest à ñu li ñuy demandé suñu autorité yi mooy njëgu li ñuy jënd di ko soxla dafa am fu ñu war a fu mu war a ba faa yam ci réew mu am amee nga xam ne lii nangam bii lay jar lii cent franc lay jar lu ci yoonu di franc yu ci yokk ab état dafay am amee cest dire que marché bi ñu bëñ a jël Sénégalais bale leen seen bopp yow miy tukki di ñëw yenn saa yi mun na laa arrivé xëy na nga am loo indi Sénégal dem fay de douanement boo fayee daaw fay ren di nga xam ñii dañuy foowe loolu nag la ñu nañ ko changé cest à li ñu teg askan bi la askan bi antanul man résultat yi ma am ci mbégte ñàkk ci am mbégte dama jàpp ne message fort bu ñu war a dégg la que Sénégalais yi ñu ngi souffrir liñ leen teg ci wàllu yokk tey kilo ceeb xam nga ñaata lay jar Sénégal xamoo ko dangay dugg jënd benn caa ceeb boo xam ne bu xonq la nga dugg ci boutique bi mu jaay la ko 300 nga dugg ci boutique bi mu jaay la ko 350 amul amee kii importe diw bu indee indi xeetu diwlinam tuddee ko càmm di ko jaay ci marché bi jaay litre bi 1600 mu indi sama diw tuddee ko sekk dugal ci marché bi di ko jaay 1300 différence mel ni diw yi du ñu benn cest di dire ceeb bi euh, mburu bi yokk giñ ci yokk 25 francs loolu amul fudul Sénégal. ça n'existe nulle part kenn mënut a tëb tëb amul benn réew bu ñu may tëb tëb sa kilo pain deux cent grammes léegi léegi caam souffrance boobu ñu dund cent francs lañ la koy jaayee félicitation wu ñii bu ñu leen félicité bu ñu leen fii félicité wul yëpp sénégalais ñoom ñi def li ñu ñi voté félicité nañu leen te sànni nañu leen message mais teewul ñii gagné ay maire la ñuy jël muy gouvernance locale mais gouver gouvernance centrale bi nga xam mu ngi ci seen loxo ba léegi di contrôler nit ñi ni ñuy dundee loolu la ñu war a wax ni aajuwul kii quoi ñun xeexuñu même bu ñu waxee félicité bu ñu waxul félicitation si ba léegi ñu ngi woote ci jàmm xeex amul fitna amul du fi musa am mais ñu wax leen ni nag. Mhm. on est fatigué. Mhm. non notre correspondant mi ngi ñu wax ne Kolda euh, commune bu Sare ji ñu jégal ma nag su fekkee ne. mooy yenn yi waa Sare Bidji. Euh, coalition gëm sa bopp moom moo remporté la victoire foofu noonu euh, kon foofu mu ngi nekk ba tey ci ci Kolda peut-être ce qui confirme Serigne Sall li nga doon wax muy liggéey bi lu ci ëpp. dañu ko def ci gox ak goxaat yi nga xam ne. sori na lool peut-être la capitale muy fii Dakar. moi je suis pas surpris J'ai suivi la campagne de Bougane dans ces localités. Et vu des affluences populaires. Et vu comment Bougane aussi s'adressait à ces population la donc déjà loolu dafa am loo xam moom moom lay firndeel et et tu sais gis nga population yooyu dañu soxla ñu ñëw ci seen ci ci ñoom et très souvent les hommes politiques dañ gis nga yenn gox yooyu noonu hommes politiques yi la plupart du temps ñeneen ñi de. Mhm. ñi nga xam ñoo nekk au pouvoir. bala ñu fay dem. mooy élection day jot ñu door faa teg seen tànk. et c' est des localités qui manquent de tout. Mhm. léegi nag segam gox yooyu nga xam ne généralement ils votaient pour le pouvoir ñoom ñoo am maturité tey démocratique boo xamante ne nii. ñi leen defalul dara ñu sanctionne leen même si c'est des partis parce que ñu bëri bu njëkk dañaan parti au pouvoir boo leen defalul après boo fi indee keneen dañ leen leen fi defal dara le gens maintenant naa ont cure mhm. te pouvoir bi bu njëkk dañ doon noonu lañ daan def su ngeen ma woteelul ku ngeen ils savent maintenant que nit ñi li ñu mën a am yëpp seen carte moo leen ko war a mën a may mais Fatou Abdou tout à dafa am lu ma fàtte au niveau ci Thiès mais Thierno Alassane Sall il est où <laughs> c'est ça le problème Thierno Alassane Sall il est réewum gor moi je dégguma ko ci dara alors je viens de de recevoir le, le communiqué ce qui confirme li ma doon wax sànq ci site d'information bi ak sunu ay ndaw le communiqué de la cellule de communication euh, de Benno Bokk Yaakaar pour revenir un peu ci lu ñu doon wax que euh, ñu ngi féliciter euh, wala bokk dangu nañu seen euh, lajjite ci Dakar ak Ziguinchor maa ngi ko tiim nii Pascal Alioune moo ñu ko moo ñu ko envoyé. mën nañu ci boolewaale yeneen yi rek waaw ñoom ñoom loolu la ñu wax. nag le président de la République nee nañu ci biir communiqué bi mi ngi féliciter. ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël raw gàddu gi ñi nga xam ne ñoo ñàkk également ils n'ont pas démérité donc loolu la ñu mën a lire ci communiqué bi. de principe tout simplement mais il va <laughs> couper, la tête de tout ces gens là. mais fa man je sais que ce président là aujourd'hui ne va pas dormir. mais dama bëggoon nga may ma ma préciser. Mhm. sëñ Saliou sur wàllu. Mhm. parce que dafa am benn erreur d'appréciation wallu la tête de conseil de le PDS mais si biir wàllu il a beaucoup de jeunes qui peuvent constituer demain une alternative. mais tax jiitaloo leen leen. non wàllu coalition la. Hmm. si biir coalition bi man je suis de la coalition je suis dirigeant d'un d'un mouvement politique un autre avenir. Ibrahima Dem moo ma dugal te Ibrahima Dem moom il avait ensemble après ba ñuy coalition mu génn si Thierno Alassane il fait partie des têtes de pont. Euh, il est, il, il est sorti, il est sorti, mais il est, pas, il est toujours dans le CRD. Ouais, Moi, je, il est dans Réum Gor. Il est dans Réum Gor, dans la coalition électorale. Mais le CRD existe toujours avec Ibrahim Adem. Abdou. alors dañu dem jëli dañu dem jëli Bamba Fall le candidat euh, de la coalition Gëm sa bopp à Médina le maire sortant également euh, sampoon ndëndëm jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ba alors euh, Bamba Fall ñu ngi lay nuyu daal la ci édition spéciale bi ñu jagleel élection locale yi monsieur Fall alors monsieur le maire Bamba. allo. waaw euh, Bamba dafa mel ne yow tàmbale ngaa tàmbale ci li nga xamante ne moom mooy foofu Médina lan la ñu mën a jàpp foofu noonu. allo allo monsieur le maire Bamba Fall il trop de bruit autour de vous Bamba Fall monsieur oui il y, y a trop de bruit autour de vous. waaw lan la ñu mën a jàpp. Mhm. lan la ñu mën a jàpp. li ma wax mooy gërëm naa waa Médina yëpp ndaxte yàlla dimbali nañu si septembre ba pour si jëf ñu ko gañee te ñoom centre bi ñu gañee sax légèrement la ñu koy def cent vingt fois la mooy centre bi nga xam ne mosul nekk Médina dañ ko yóbbal plateau di ma ko doon saaf donc au dernier moment lañ koy suñu métti yooyu sax waaye daal yeneen six cent yëpp muy Mbaye Diagne Diegay Mamour Diakhaté Mour Diop Alassane Ndiaye yëpp ñun ñoo ko alors lan ngay wax ci victoire boobu euh, xam nañu ne fi mu toll nii yéen ngi ci mbégte yaa ngi jubilé ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa sa sa ay militants mais le message aujourd'hui bi nga xamante ne moom ngay jox ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo dëkk Médina confirmé euh, et puis ñoom ñoo choisir la continuité ak yow lan nga leen di wax. alors euh, euh, dagg na peut-être que monsieur le maire alors dagg na euh, Bamba Fall. la ñu amoon les résultats de Wakam. Mhm. Bathily Bathily Bathily gis naa loolu comme euh, information Samba Bathily mm. dañu ko dañu ko daan fa nga xamante ne moom mooy euh, euh, Wakaam d'après les premières tendances par Yewwi waaw par par Yewwi askan wi mm. loolu la ñu am foofu nga xam ne moom mooy wakkaam Wakaam normalement demain dinañ ci am parce que yu ñuy wax nii lu ñu ci wóorul rek dañuy dañu leen di jox ne suba dinañ ci am lu gën a leer mais li ñu jotagum d'après les premières tendances des tendances qui ne sont pas favorables à Sem Bathily Samba Bathily c'est ça mm-hmm. euh, donc loolu loolu ñu amagum euh, les impressions de de de Bamba Fall yi nga xam ne yëkkati na ko fi mu toll nii euh, Médina dañu taamuwaat continuer ak moom sànq yaa ngi ko doon wax. waaw ah, mais ça montre que ça ça montre moom. le travail qu'il a fait fi mu toll nii le travail qu'il pendant son dernier mandat. les populations l'ont simplement approuvé c'est parce que aussi li ma doon wax léegi c'est une vérité Bamba ko loo ko mën a reprocher c'est quelqu'un qui est très proche de ses populations. Mmh. c'est un maire qui n'hésite pas à descendre dans la rue ànd ak nit ñi di balayer le rues di def ay pavage di def ay kii loolu moom on le sent chaque jour on le voit chaque jour c'est Bamba Fall waaw et quoi qu'on puisse dire aussi au moins il a eu à faire des réalisations mm-hmm. parce que aussi maire yi même Barthélémy Dias loo ci mën wax il a été un bon maire dans sa localité. Mm-hmm. gis nga bilan yii. gars yi di xeeb dafay cest à nit ñi dañ ci teg seen bët ba pare di laajaat leneen contrairement à beaucoup de maires sortants aujourd'hui beaucoup de maires sortants est sorti aussi parce que beaucoup de maires sortants n'ont pas pu présenter les bilans mais les gens les ont sortis parce que non ils n'ont pas de c'est ça aussi quand on n'a pas de on n'a plus le droit d'aller demander le nga laajaat baat askan bi lool loolu moo dal fi nekk maire yu bari ah. Euh, alors euh, euh, gëm sa bopp médina raw gàddu gi yéen a ko jël foofu noonu Medina bi xëccoo bi metti woon na lool ban commentaire nga ciy def Mouhamed. waaw xanaa su émission bi jeexee rek ma ànd ak suma président ñu dem Medina dem jubilé balaa ñuy dugg Tëngéej continuer dugg ci dëkk dëkkaan yi mooy comme li may wax boobu ba léegi rek doon na ko wax sénégalais yi ñenn ñi di ci xel ñaar. mais léegi gëm naa ni tey askan bi yëpp nangu nañ ni que la grande coalition gëm sa bopp est devenue une réalité politique. une réalité boo xamante ne Mansour moom moom la ñu gis euh, Grand euh, euh, Médina commentaire bi sànq yaa ngi wax ne félicitation bi ma ne la fi mu toll nii quand même c' est l' démocratique Mansour. bu ñu a félicité ou bien il n' a pas félicité. Cheikh Ba <laughs> Cheikh Ba Cheikh Ba est-ce qu'il a félicité. non non peut-être dina li ñu pas féliciter Ahmed Aïdara mais mais mais mais li ñu li et <laughs> eh, eh, pourtant il ne le fera il peut le faire Serigne Saliou. Aliou Sall ne le fera <laughs> il le le fait il pique politique à 100 pour cent <laughs> man li Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon rek. nit du am par parlo mais day am féete. Mm. dafa am ñaar ñoo xam ne mënu ma jàngat seen situation politique muy Bamba Fall ak Ahmed Aïdara parce man damay far. non léegi doo ko jàngat rek léegi nag léegi wax mooy ñi nga xam ne dañu félicité quand ñi nga xam ne euh, euh, wax nañu. mais nangu nañu seen lajjite. góoma ku nekk nga euh, jàkkaar peut-être pour leeral foofu. Lassana Gagny Sakho moom gis nga jamono yu yëpp sorti yi muy def sorti yoo xamante ne la. àndul dara ak ñi nga xamante ne mooy coalition benn Bokk Yaakaar mais fa muy gën di far mooy coalition eh, Yewwi Askan Wi mooy Ousmane Sonko mooy mi ngi koy félicité eh, di di fësal li nga xamante ne moom mooy ngelaw gàddu googu mu am eh, ay mbir la yoo xamante ne moom kooku moom mën wax félicitation fii la taxaw publiquement publiquement ci presse bi ñu invité ko mu ni ñun buggaan amul ci ay militant am lu dul ñun ñu koy liggéeyal mën ko loolu du dëkk man du ma militant wu Bougane et j'assume je le confirme donc félicitation safuma man maa ngi wax ci kaaw amee Ahmed Aïdara ak Alioune Sall parce ma accuse ma def defuma ma fenn militu ma ci Bougane militu ma ci Ahmed Aïdara mais sama xarit lañ Bougane buy xeex politique su ma amee sama benn carte wallahi am na sama benn xaritu benn bakkente def ni ma sànni naa gëm sa bopp ndax yow ndax xam naa ne yow politico mais yaa ngi liggéey ak Bougane nit wax na ma ni Euh, Ahmed Aïdara bon yow yaa yaa fi nekkoon bi ñu ma waxee ne Ahmed jël na ndam li dama am émotion mënu ma a wax parce que noonu laa mel sëñ Saliou sama xarit du ma ko nëbb du ma commenté ci moom ci wàllu politique damay toog seetaan mais damay fa damay moom bokk ma ci mere mere ma ci parce que nit ndab nit dong la nag journaliste dina neutre quand mais sa relation ak keneen loolu ngeen seq pour pour confirmer li ngay wax le général de Gaulle disait qu'on vote par sentiment ou et eh, loolu loolu moom moo am. alors man pour pour pour confirmer man ni ma amee kii ci politique voté jiwuma dama je préfère téye sama carte bañ a voté fenn. mais n'empêche nag sama diggante ak ñaari nit wala ñetti nit yi nga xam ne yàlla mu boole ak ñoom te mu sincère. Mhm. ñu bokk lëf. Euh, bu ñu bu ñu gañee dinaa leen wax félicitation dinaa leen wax félicitation. ah ah ma ah, xaajamale seen ndam. ah, ah bon alors ñu dem Grand Dakar. mais jubilé ah tegal foofu sa baaraam ñu dem Grand Dakar. Ah. jëli Ndeye Khady Thiam Tall alors Ndeye Khady. waaw nuyuwaat nañu la Masta Coono également puisque guddi na lan la ñu mën a am grande Dakar. waaw xam naa coono gi moom ñun ñoo ko bokkoo jamono ji ci Grand Dakar nag euh, mbir mi euh, dafa xaw a jaxasoo tuuti donte ni nag waa Benno Bokk Yaakaar ñoom jàpp nañu ne euh, ñoom ñoo gañee ñoom ñi farak Jean Baptiste Diouf ñoom ñoo gañee nag kii di Aïssatou Fall mi nga xam te ni moo bokk ci Yewwi Askan Wi waaye nag ñoom la ñu jàpp moom moo di ne commune bi Benno Bokk Yaakaar moom moo ko daal di gañee donte ni écart bi bëriwul ñu jàpp sax ne ni lu ni mel moo tax ba ñu fare ak Aïssatou Fall Mbacké mi nga xam di responsable femme xalifiste yi daal di daal liñ ko rawee daal bëriwul noonu moo tax rek nit ñi jàpp ni moom moo daal di gagné waaye itam jubilé bi nga xamante ni ñamu àndal ña ko doon def loolu nag jagleeloon ko ville Dakar bi nga xamante ni moom moom ñoom waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko gagné foofee ca diwaanu euh, Grand Dakar kon jamono ji muy ca boori Niafare ak Jean Baptiste Diouf ñoom ñëpp kenn nelawul ñëpp ngi ci buntu kër yi taxaw ku ne di nag revendiquer ni yow yaa gagné ba tax na li di compte yeeg décompte yi ñu ngi nekk nag di ko defaat jamono ji ngir xool rek fan la dëgg gi féetee dëggantaan waaye daal li ñu mën a jàpp euh, ci chiffre yi nga xamante ni moom la ñu jot moom moo di ne euh, rek Jean Baptiste Diouf moom moo gagné pour commune bi. waaye nag muy waa Benno Bokk Yaakaar waaye nag waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gagné pour la ville waaye des ci diggante Jean Baptiste Diouf ak Aïssatou Fall Mbacké mi nga xam ne mooy responsable femme xalifiste yi foofu moom mën ngeen jàpp ni écart bi bëriwul rombul deux cent points ba tax na nag jamono ji ñu ngi compter waat ndànk-ndànk ngir rek daal di mën a fësal dëkk gi dëgg gi ah, ci fu ci mel ni ci commune bu Fass Gueule Tapée Colobane moom foofu jàpp leen ni ah, ki nga xamante ni jamono ji ah, moom moo daal di jël foofu raw gàddu gi nag moom moo di candidat bu Yewwi Askan Wi di Abdou Abdoul Aziz Faye moom nag mi ngi bokk ci taxawu Dakar ba léegi kon nag ñu mën a rek jàpp ni kon ci commune yi nga xam ni ñoo seq biscuiterie yëpp ñoom ñëpp Yewwi Askan Wi ñoo fa daal di mujje mujjee gagné euh, romb nag lii di commune Biscuiterie yi nga xam ne moom euh, wàllu Sénégal grande coalition wàllu Sénégal euh, bu Djibril Wade Mouhamed Djibril Wade ñoom ñoo daal di gagné fii te fi nga xamante ni moom moo di ca HLM foofu la ñuy jubalee ngir xool tuuti naka la mbir yi tëddee foofu ak ki nga xam ne moom la ñu tabb yees nag di Moustapha Diop moom itam bokk ci coalition Yewwi Askan Wi Fatou Abdou xam ci kanam tuuti euh, ngeen lambaat ñu rek euh, ñu dégtal leen. alors ni ñu ko déggee très serré ku nekk mi mi mi ngi mi ngi mi ngi wax ne moom moo gagné euh, ci foofu nga xamante ne moom mooy Grand Dakar wax na ko ki nga xam ne moom mooy Jean Baptiste ak coalition Yewwi Yewwi Askan Wi Serigne Saliou suur Euh, euh, tendance yi boo ci dégg rek tantôt euh, c'est Yewwi mooy jiitu tanto dafay serré entre Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi parfois coalition Gëm Sa Bopp ñëw jël raw gàddu gi ci yenn localité yi Alaaji waaw dafay wane rek beneen beneen beneen beneen beneen xar kanam gu bees gu ubbeeku ci wàllu politique parce que fu nekk nii am na ndaw yoo xam ni coalition Yewwi gi ñu bokk permettre na leen ñu gagné ay communes yoo xam ni mënoon naa bañ a doon léegi donc dugal nañu leen ci benn créneau boo xam ni localité ba ñu nekk ay ay personnes incontournables la ñu doon ci wàllu politique kenn dootul mën a def loo leen boolewul donc bépp parti bu am la lambaxte tuuti xam naa moom Thiam laay waxal seen seen seen seen parti bi day wala seen coalition bi war ngeen gën a farluwaat de parce que yëf yëf yaa ngi tox te dafa am ay ndaw yu bees yu nekk ci commune yoo xam ne dootuñu xaar benn mag wala ay coalition yu ñuy nase fii wala feneen ñoom dañuy doxal te politique Bara Gaye dafa jox leçon ñu bëree bëri boo nekkee jeune nekk maire tolloo ak ndaw ñi di nga tabax benn base de données Bamba Fall loolu mooy forum benn base de données boo xam ni pour nanguwaat électorat boobu ci sa loxo dafay xaw a jafe te ren dafa am ñu bëri ñoo xam ni Yewwi Askan Wi may na leen change boobu misaalu Moustapha Diop ak Pikine Pikine Ouest la xawma am na beneen jeune bu sant Diop Pape Diop maire bu bees la moom itam. Mhm. ñooñu ñëpp kenn ku nekk am nga jàppandalu coalition bi tabax loo xam ne dootul dootul toj. Mhm. donc loolu day joxe misaal ci ni. Mhm. Euh, Benno Bokk Yaakaar Cheikh Diop. coalition Yewwi Askan Wi. voilà Pikine Ouest. voilà il est très jeune. jeune xale bu xale la. Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ay bëñam mu ngi commencé yàng parce que bul fàtte ni local yi ginnaaw coalition Benno Bokk Yaakaar waa parti socialiste dañu joxe woon dañu dugalal seen caution bopp ñoom itam. pour permettre seen i yenn militant ñu dem ak bannière parti socialiste TPS mu ngi ci biir euh, benn Bokk Yaakaar loolu signe la buy wane ni dëgëratul euh, yaa ngi compté tey liste benn Bokk Yaakaar ci élection yii ñu weesu ba jatara ci noowu coalition bi te ba léegi officialisé guñu dugg Idrissa Seck ci coalition benn Bokk Yaakaar alors bu ñu consommé beneen défaite après défaite bi la mooy xewaat donc tey Euh, bëgg ak bañ euh, concret ak moom coalition benn bokk yaakaar dootu ko yëy ay bañ ak yàng na pax mais Serigne Saliou est-ce que les coalitions sont vouées à rester parce que seen analyse politique yi da ngeen di fàtte ne ce sont des agrégats de partis aujourd'hui local yi benn don donné la monté boo ne yeewu askan bi kana ko composé mais ce sont des leaders politiques qui mm-hmm. nécessairement il y aura le choc des ambitions demain suñu analyse yi ñuy def nii effectivement au niveau local ça tient mais je pense que ce sont des coalitions de circonstances. et demain je peux vous poser une question vous je une question. Mhm. gouvernement bi ñu am tey. Mhm. kan moo nekk njiitu réew mi. Macky Sall. kan moo nekk président assemblée nationale. Moustapha Niass lan la. chef de parti. oui ñaata yoon la dem élection présidentielle. kii. Moustapha Niass. son propre parti. ana Ousmane Tanor Dieng lan la mhm. nekkoon. Mhm. Euh, professeur Abdoulaye Bathily avant muy génn. Mhm. li li permettre benn bokk yaakaar mu dund 2012 ba léegi. ña fa nekk gënuñoo nekk ay gor wala ay patriote ñi nekk ci yewi askan wi. non c'est pas ñu mën a am consensus bu ñu mën a doxalee même diire bi ñuy doxal. politique du problème yi góor problème d'ambition et d'égo la je vais te dire une chose aujourd'hui ambition góor kay taw non mais ñëpp góor lañ c'est-à-dire ma wax la benn affaire ñun n'importe moi sentiment nit képp nit buy def politique sérieusement passion la parce que politique amul lu njëriñ bu mu lay indil yow da nga am passion pour aider say kii parce que man mi wax ak yow je ne vis pas de la politique vivre ma ko damay liggéey damay jiite nit damay def lu ne di dégg pourquoi ma bëgg a def politique parce que gëm naa ne fu ma nekkoon jëlee naa fa expérience jëlee naa fa compétence boo xam ne mun naa ko mettre au service de mon peuple képp kuy politique en majorité noonu lay fonctionner normal noonu lay fonctionner mais képp kuy politique aujourd'hui boo nee les coalitions Khalifa Sall a déclaré sa candidature pour 2024 vrai ou faux mm Euh, euh, Sonko a déclaré sa candidature pour 2024 mhm. ainsi de suite dama la bëgg a wax ne les coalitions yu ñuy def nii gagner les locales ne vont pas perdurer moi j'en suis convaincu l'extrêmement je suis pas d'accord moi je suis convaincu suis pas d'accord que demain toutes les coalitions pas toutes les coalitions mais la majorité va se défaire. Ah, alors alors ah, mais nag mais nag aussi ah, ce qu'il faut comprendre non non non parce que bi ñuy fal Macky Sall. il faut avoir une recomposition des coalitions Hmm? Euh, Moustapha Niass demoon na ñeneen demoon na bi ñu demee ba ñu dem fal Macky Sall te ba léegi tasul non li nga wax ni moom non am mais euh, Mansour ce qu'il faut savoir mën naa yàgg ah nga ne coalition yi dañuy am recomposition que ah. kii mën na jóge fii ñii war nañu mën a ñëw fekk si mais le problème qui se pose aujourd'hui mooy yéen ce qu'il faut savoir un parti politique seul un parti politique ne peut pas gagner une élection que ça soit ici que ah ça soit en France ailleurs tey même boo demee France les partis chaque fois ils sont dans des coalitions c'est-à-dire il faut mu am ay coaliser maintenant coalition coalition boobu nag mën na am une recomposition. ok dafa kii mën na jóge fii dem fii kii mën na jóge fii aussi ñëw faat ñëw ci coalition bi. Ah. mais li wutoon mooy bu fekkee na nga ne. mais yaa ngi dëggal lu ma wax dama ne les coalitions vont se défaire. waaw moom la mais mais c'est-à-dire non se défaire c'est quoi ils peuvent se défaire ah ils se refaire aussi. ah se défont mais ils ah man lu ma wax dafa leer. dama ne toutes les coalitions sont vouées à se défaire. et à se et aussi. PDS PDS ña àndoon moom ba mu mhm. nekkee ci nguur gi mhm. ak ña ànd moom tey xam nga wute na wute na moo tax ma la mhm. quand il se la coalition se defe mais la coalition aussi se refait encore sur une autre manière loolu moom mooy aujourd'hui dama ne coalition bi gagné bi parce que mu ngi may wax suñ coalition wóorul parce que dema ya y a peut-être des gens qui vont tirer au sein des coalitions de conclusions en disant ah oui comme li nga wax ah, ñu jóge fa dem sàkku comme li nga wax ñu refaire une autre coalition c'est-à-dire man je ne peux pas croire que les coalitions telles qu'elles sont Bougane par exemple aujourd'hui kii wax na ne au Sénégal il y a quelque chose qui est important il y avait il y a une bipolarisation politique qu'on le veuille ou non aujourd'hui demain demain Bougane il il se positionne mais il se positionne comme quoi comme une troisième voie